gouvernement def li ngay assurer mooy la réparation mais état mën na jël philosophie répression daal ni moom réprimer rek moo ko intéressé mais ndax victime bi waa ji ñu tëj dina dina fay xaalis bi mu yoreel kee yoonam nekk. en tout cas donc c'est tout ça. en tout cas bu ñu bu ñu bu ñu càmbaree le le système de fonctionnement de la justice. Mm et puis booy déglu yenn récits yu yu yu glaçant yi euh, on espère que au sortir de ces de assises là. dinañu mën a contourner beaucoup de difficultés dans la façon de de délivrer euh, la la la justice mais mm. Amadou dafa dafa am lu lu lu paradoxal mm-hmm. pendant qu'on parle d'une réforme d'une modernisation de la de la de la justice mm-hmm. pendant qu'on dénonce certains certains abus mm-hmm. de la de la justice est-ce que mën nañu comprendre se le, ce qui se joue autour du scénario Bah Diakhaté Imam Ndao bon xam nga encore une fois euh, injure ak offense suñ ne injure chef de l'État vieillir dañ doon jàpp ñëpp c'est des attaques politiques nee naa la ñun vous pouvez nous accuser de tous les maux mais je parle bien des responsables ak ñi nga xam ni ñoom ñooy engager le parti Pastef. amul bu bu bàyyi di def référence yooyu defal ndànk rek. encore une fois da may obligé à à à te mettre à à te donner des faits. léegi ma ñëw foofu terrain boobu c'est risqué pour vous. quand on accuse un ah. président de la République ou un ministre. c'est sur des cas de détournement de mauvaise gestion est-ce que loolu mën nañ ci d'accord maintenant quand un individu dafa ñëw ni diw doo bëgg a wax sax li mu li mu wax parce que li mu wax yow su ma nee la woon jaar ci doo ci jaar ce qu'il a su ma nee la jaar ci doo ci jaaraat. en démocratie et en société. l'injure n'est pas permise. non non l'injure n'est pas permise. l'insulte dans le débat l'injure l'insulte les maintenant xam nga ñun dañ ni tant que c'est dans le cadre politique nga ni kii mauvaise gestion accusé sax de corruption accusé de mais loo yenn yoo xamante ni c'est des choix à faire. tout ce qui est débat dépénalisation de délit politique délit politique laa la wax dépénaliser ko kooku c'est une évolution démocratique mais nag en même temps il faut nga accepter dans ce cas d'opinion délit d'opinion non délit koy wax mooy koo xamante ni il a donné son opinion sur la marche du pays wala comme sur les nga ñëw ni nit mais l'homosexualité ci ci ci ci marche pays bi la bokk non non non non bokkul si da nga accuser defal ndànk si defal ndànk Euh, li ma la bëgg a wax mooy délai d'opinion dépénaliser ko ou pas il faut que les popula nit ki nga xamante ni dañ ko attaqué nga jox ko le moyen de se défendre mën nañ laa bañ a tëj à la prison ferme mën nañ discuter sur ça sur les délits d'opinion mais que di nga am une amende conséquente boo xamante ni si le délit et avéré. mais en fait xam nga lan xam nga lan moo tax. may may may xam moo tax may poser la le le cas Bah Diakhaté Euh, yéen da ngeen yàgg euh, fustiger euh, yenn procédures yi yenn entorse yi yenn contorsion yi et nee ngeen bu en avez été victime mm-hmm. te aujourd'hui sax réminiscence yooyu ngeen ci am moo tax yéen ngeen jël mbiru réforme ak modernisation de la justice bi mu tenir leen trop à cœur waaw pour des gens yu am position boobu moi je m'étonne que Bah Diakhaté tienne les propos qu'il a tenus muy wax ak Ousmane Sonko par ailleurs chef du gouvernement du Sénégal kooku ba muy tenir propos yooyu il avait précisé de lui-même que il n'est pas là en tant que ministre en tant que premier ministre il est là en tant que président de PASTEF Euh, bah Diakhaté et, et encore une fois moi je je, non, je, je ne je ne conforte non, pas je sais que da ngaa juum non non xaaral mhm. je ne conforte pas mm -hmm. je pas mhm. ce type de discours et de débat c'est à bannir mais moom mu ne moom mu wax ak Ousmane Sonko Ousmane Sonko bi muy wax UCAD mu ne moom il n'est pas là en tant que chef du gouvernement il est là en tant que président de PASTEF donc on est dans le cadre politique bu fekkee ne Bah dafa tenir des propos injurieux vis-à-vis de le vis-à-vis du citoyen Ousmane Sonko pourquoi le procureur s'autosaisit bon ça ça pose problème pourquoi est-ce que le procureur s'autosaisit en plus de ça ñu dem invoquer l'alinéa 2 de l'article 254 du non. code pénal pour est-ce incriminer que, est-ce que euh, Bah Bah Diakhaté est-ce que cet alinéa existe da nga naan ma waaw donc fondement légal bi am na. su ma ko su existé wul mais mais son interprétation son interprétation pose problème. gis nga la vidéo bi mu wax ça n'est pas lié à les propos tenus par Ousmane Sonko foofu au gouvernement euh, à à man je suis je, je n'aime même pas me prononcer sur ce cas li mu wax live la doon def te lim ci tenir ci propos c'est pas Ousmane Sonko dafa wax fële. da ko accuser ouvertement d'avoir des relations homosexuelles non cette vidéo là. mani cette vidéo là ne date pas de 2024 cette vidéo là dafa yàgg. et bu fekkee ne cette vidéo là dafa yàgg bu fekkee ne dafa am amnistie. sur des faits. concernant euh, euh, une période qui couvre 2021 à 2024. waruñu convoquer cette vidéo là. li nga yaa ngi jox amnistie interprétation. bi mu amul xaaral interprétation cette vidéo là elle date de 2022. accusation d'homosexualité est-ce que c'est un délit politique. non xam nga lu ñu bind ci ci loi d'amnistie bi les faits ou crimes yoo xamante ni dañ ko qualifier de politique liée aux manifestations lim dafa ndànk moom la wuy ma déedéet par voie déglu ma ma ne injure déglu ma bokk na ci dafa ni la les faits dem ah. déggoo ma ma wax la de lim ci wax la le euh, accuser nit d'homosex de pratique homosexuelle loolu dama ni la est-ce que ça rentre dans le champ matériel de l'amnistie ma ne amnistie bi dañ ci boole injure par la voie des réseaux sociaux li li gën a et loolu moo tax ñenn ñi nga xam ne dañ leen jàppoon pour des délits d'opinion pour des délits d'insulte ñu libéré leen fois ki nga xamante ni yow moo man la da ngeen ni mais mosu leen a comprendre le délit politique dafa mel ni kii dafa am déjà y avait procès man l'essentiel ce qui m'importe parce que. nee naa la mais pourquoi convoquer une vidéo de kan moo la wax lool la procureur convoqué. non non euh, kii. non dama lay poser question. xam nga déjà dama la poser question si lan moo tax. procureur autosaisir procureur xam nga da wax lu am solo moo autosaisir. waaw lenn nga war a wax. pourquoi le citoyen Ousmane Sonko qui se sent insulté. falal moom portewul plainte. parce que on a. et pourquoi ñu dem euh, mu ñu dem cueillir Bah Diakhaté. sans lui adresser une convocation et lui donner l'occasion de venir te déférer à la convocation fois, man, moi c'est sur les formes déggoo ma man munuma ce débat là dama la koy poser de façon simple procureur autosaisiru na invoqué na benn article fait yi mu koy toppee waxu xamoo ko non non non xamoo ko parce que waxu ko dafa dangaa gis euh, convocation ma nee na moom moo wax convoqué ko déglu ma rek. convoqué wuñu ko may ma ma ñëw xam nga qu'est-ce qui est important et intéressant dans ce contexte. mooy Ousmane Sonko instruirul ni ministre de la justice instruiruñu euh, procureur pour mu. autosaisir ah yaa ngi wax léegi on n'est pas sûr. on n'est pas sûr hein? donc yow léegi. on ne sànq da nga ne le le le le le parquet dafay euh, dafay wuyu aux injonctions de la chancellerie. du yëpp non rien ne nous dit n'a pas été instruit pour s'autosaisir yaa wax ni rien ne nous dit waaw ah, xam nga da nga déglu ma da nga ni mënuñu wax mais par contre xam nga poli ah. procureur lan la koy reproché waaw ah, mënuñu ma ne déggoo ma de nee nga yow xamoo lan la rien ne nous dit que le procureur n'a pas agi sur injonction après nga ni rien ne nous dit mënoo ci wax dara mais nga toog ni par contre tout me dit que yow yaay wax de nga ni tout me dit le procureur lii ak lii la koy reproché ce sont d'anciennes vidéos couvertes par la couvertes par l'amnistie ban preuve la ci li ngay wax délit délit dof bi euh, bi yow yaa ne sànq nga ne dafa dafa bon ma man je je je ne ma la wax mu am solo yow yaa ne sànq déglul li ma lay wax dafa accuser euh, xaaral d'entretenir des relation homosexuelles ma la cette vidéo la elle date de 2022 non non kii li muy répété man nee naa la l'individu en soi du ma fi personnaliser di tout du turam. de 2022 il bénéficie d'une présomption d'innocence na may koy respecter présomption d'innocence am du ma ko charger j'ai pas besoin de le charger un deuxièmement le gouvernement doo leen dégg mukk ñu instrumentaliser l'affaire comme ñun nit ñu daan def procureur mooy jël responsable defal ndànk ma wax la rek. waaw mais le procureur dafa am patron. son patron c'est le ministre de la justice. et encore une fois ça pose un problème problème mu indépendance bi ngeen di wax. question indépendance bi. procureur dafa am patron dafa mën a autosaisir. boo nee autosaisine mooy il n'a pas agi par voie d'injonction. waaw mais dafa am patron. waaw defal ndànk rek patron bi est-ce que moom dafa ni ko ordre de non poursuite kii bu ko topp. wala demal topp ko bàyyil procureur mais loolu xamoo ci dara moom non si waay yow gis nga ñun nee naa la le changement bi ñu lay wax xam nga mooy lan saaga na président Ousmane Sonko président du parti wala premier ministre interprétation nga def nee nga amnistie couvrir na ko couvrir ko mayal tuuti rek l'essentiel et c'est cette garantie fondamentale bu nouveau gouvernement bi indi doo dégg ministre de la justice nii le premier ministre Ousmane Sonko encore mooy le président Bassirou Diomaye Faye ñu intervenir à quelque titre que ce soit dans cette procédure